yow daam dootoo ba tey ci seen scandale du jour fii ci VIP people kii di Adamo nag xam ngeen ni mooy topp kaa Adamo mooy traité kaa yi ndax nag sénégalais yi jox importance bi Adamo nag kii di ambongo Bongo ñu xam ko ci mën liggéeyam moom it naxtu dal ko ci diggante ak jigéen ndax nag tout le temps dañuy naan moytu leen jigéen ak xaalis moytu leen ak lu ak je sais de quoi je parle nañ dem déglu histoire bi nga xamantene c'est raconté par la femme li xew diggante mom ak bam ak am bongo ak ki nga xamantene moy mooy aadamoo moo ñu koy leeralal. yaar baa yàgg si jàmm. sant yàlla bu baax. ça va dama defone vidéo légui légui ci affaire am bongo bi ci manam limu mu sékk ak yow té joxula sa xaalis. vidéo yi wër ba yegg ci man ma lijjanti sa numéro pour wola la pour waxtaan ak yow légui li bëgg xam moy exactement am bongo lan nan la affaire bi demee ba mu tëddee la ba pare moom ne du la fay. Euh, am xam man moom man dama ko mës a bëgg déjà fan sam la. waaw ay son damay déglu lépp. waaw léegi fii lañ xamante. waaw. ma amoon benn soxla bu ma waroon a jàppalee sama yaay. waaw léegi nag ma wax ma ko waxee mu ne ma si loolu moom amul benn problème. waaw loolu moom di. waaw. ma ne ko wax ma koy déglu après ñaari fan tegu ci ma woowaat ko di ko waxaat ne ko man maa ngi lay déglu boobu ba tey pour ci lu ma la waxoon après mu ne ma léegi daal loolu mën naa la koo régleel waaye ci kaw damaa bëgg a seq dara. waaw yow it nga nangu loolu. damaa bëgg a seq yow dara su ma paree dinaa la régleel sa problème boobu noonu. yow nga nangu ko. léegi nag waaw comme euh, problème bi dafa urgent woon aw ma woon choix aw ma woon choix. waaw ma ne ah. bu baax. léegi moo waxtaan ceeg man mu wax nag ma jox xaalis waxtaan ci mu ne ma loolu kay problème tey jox xaalis tey tey tey. léegi yow nga seq ak moom mu tëddee la ba pare te jox la xaalis moo waral coow ma demee këram. léegi oh. ma koy laaj xaalis bi mu waaw. looloo waraloon nag après ma mer parce que loolu moo taxoon ma def li ma def. mais yow est ce que mënoo woon a tamit mënoo yow est xool koo xam ne war na laa mën a àll wala keneen nga bañ a joxe sa bopp wala yow loolu nga mënoon def. ah soxna si. damaa wër kenn kenn kenn kenn ku ma mën a àgg ok te moom nag te moom nanguwuloo ne te yàlla tax. ma ko ko waxee daf ne ba man ma am ci yaakaar. waaw ñu dem ba deux jours laajaat ko ko di ko ko fàttali pour man da koo fàtte xaalis bi daal pour ma mën la koo jox faaw ñu tëddante ba pare. léegi mu tëddee la ba pare kii la. waaw baa tëddee bi defu defu la dara lu garaaw dara méttiwu la. a ah, ça xaw naa am ay affaires yu mooy métti tuuti rek. mais waaw non xam nga leen moom ñoom fi mu toll nii moom mais nag lekk na nag jël na jël jël nga koy bu bari coow ay bongo maan ay bongo maan ak sabar yëfu géwal la mais dinaa maa ngi woo am bongo bu ma ko jotee rek te guddi naa laay ba ci kanam jërëjëf. ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo ma nee naa je duma ci duma ci commentaire.

en bongo en tant que responsable en tant que sénégalais dañ lay béggé genre erreur à éviter sutura dafa baax man lii mooy sama wax ci